sëñ Béthio ki tax li tax a tax moo tax lépp tax sëñ Béthio moo tax lépp tax bay tax tax yi nañu ko sant gaañi nañ leen sant sëriñ Béthio ngor gi dama ne dama ne sëñ Béthio sëñ Béthio kenn defalu ko dara sëriñ Saliou ko defal lépp kooku kooku day suñu njariñu àdduna ak àllaaxira kooku day suñu njariñu àdduna kooku day suñu lépp sëñ Béthio ay waay gaañ yi 46 ak 2018 waay gaañ yi du benn fan du ñaari fan 73 ans mu ngi ko ak Serigne Saliou sonnul tayyiwul gëmmantiwul dajjantiwul fañul mbooloo mi ku ñëw mu ubbil la ku ñëw mu yaatal la ku ñëw mu faj say aajo sëriñ Saaliw a ko wax sëñ Béthio mënu ko mbakkee mënu ko jox naa la kun fayakun képp ku amati aajo bu dikkee ci yow bu la ko diisee na nga ko faj na ko da ko deel dogu ndax loo dogu ma fekk la ci dama ne kun nag yàllaa ko moom sëriñ Saaliw li mu may sëñ Béthio bari na may na ko lépp waaye nag sëñ Béthio li wax kun fayakun di fajuk aajo jam sëriñ Saaliw takk ci loxoy sëñ Béthio ne ko bu la diisee ajam nang ko faj way gaay ñi way gaay ñi nañ leen sant sëriñ Béthio tay li mu ñu defal tay li mu ñu defal dama ne ñoo def ba fay ko mënuñu ko ñoo wax ba fay ko mënuñu ko nañu xam nar be fi indi xorom si ñu sante ko sante gi nak moy ngor gi and ak mom top ko te ne ci limu bëgg te di liggéeyal wax jaa ngi noonu maa ngi koy sant sama cantuk bopp cant gi mooy moom day daa def lépp ci lu ñu xam ak lu ñu xamtikoon te mu jomb ñu lool te mu jomb ñu lool soxna Aida Diallo cuun gi damay bëgg ñu ma koy wax ndax jaay naa sant bi yàgg na ba ma xamee ni mooy sama borom te laa jaay sant bi waaye soxna Aida Diallo ji damay bëgg ñu xam ni dama juddoo ci diggante pël ak séeréer mu fekk ma fam ma fekk jële ma fam ma jële indi ma fi ma indi yóbbu ma fam ma yóbbu mu jomb ma lool ma fas yéene doon as gor fas yéene koo jaamu fas yéene koo liggéeyal waaye fas yéene koo sant faw faw barki sëriñ Saaliw maa koy sant bu wér universel soxna Batoor ma nga ca sëriñ bi di jàmbaar lool barki Serigne Béthio di jambar lol ma nga fa kat di liggéeyal Serigne bi waye teewul mu ngi fi di liggéeyal Serigne bi ndax mu ngi and ak mbolo mi Touba ka Serigne Touba mu ngi liggéeyal Serigne bi ñoo àndee 17 avril ci jëf. ci kaddu gu rafet ci organisation universel soxna Dia saliwu Thioune di xel koom moom it maa ngi sant Serigne Béthio ànd nañu liggéey bi ci jëf ci kàddu yu rafet ci organiser mbooloo mi maa ngi koy seereel àdduna waaw ndax ki mat seere mooy Serigne Béthio te moom xam na lépp waaye maa ngi bëgg ñëpp dégg ko ànd bu rafet lañu ànd di diisoo di waxtaan di déggoo ànd ak mbooloo mi mii ñu Serigne Béthio dénk ñu nangul ñu lool ñu ànd liggéeyal Serigne Béthio universel sëñ Xaadim Cuun moom it ànd nañu liggéey bi ci jëf ci organisation ndax moom it sëriñ bi da dénk mbooloo ànd nañ ko ci jëf ci organisation ci wax ju rafet ànd nañu di liggéeyal Serigne Béthio maa ngi sant bu baax sëriñ Béthio sëñ Sall Gueule Tapée mooy taaw sëriñ bi ñoo ngi sant ci sa taxa sa teewaay Yak sa rek yi nga ko andel waaw ñoo ngi sant bu baax ndax li rek ñu war joge fofu a cianta ah ni cianta ko ni ma ngi naan jërëjëfati sëriñ Béthio ci cianta ko ni ndax kat luñ daan def ben ñoo ngi koy def téeméer te it kanam la jëm te lañ ko àndeel barki sëriñ Béthio muy Touba kër sëriñ Touba muy xelkom muy waa kër sëriñ Xaadim Cuun waaw barki sëriñ Béthio ñoo àndee liggéeyu sëriñ Béthio bi di xàcceendoo di dóorandoo moo tax 17 avril ren bii gaañi ndey 17 avril bu mës sa xew day 17 avril bu mës sa xew te ku dikk di nga xam ne mu demee ndax fii may waxee yéen kat nag yi moo jotagul ma ñëw gëléem yi jënd nañ ko mu ngi dikk xar yi noonu ginaar yi noonu waaye condiment yi tàmbali naa wàcc te fruits yeeg boissons yaa ngi dikk ak ndox mi tey matt mi si na waaw lépp ngi dikk ci tawféexu Serigne Béthio kon ñu maa ngi santaat bu baax mbokku taalibe ci ànd gi ñu ànd liggéey sëriñ Béthio bi waaye yéen a di jàmbaar barki sëriñ di as gor yéen a di ay taalibe ndax waaye santaat nañu sëriñ Béthio ci boole gi mu boole mbooleem cantaakoon yi biir réew mi ak bitim réew kenn desul ku ci nekk yaa ngi def loo mën ak loo mënul ngir jublu ki sëñ Béthio bëgg kon yalla na fi yag te gëna a wér waaye maa ngi sant bu baax presse bi mbollem organe de presse yi fi tew sen taxaway rafet na ndax kat wax deug yalla te diggu ndolor ba legi yéen ngi taxaw sen taxaway bi ngir jallale cantuk Serigne Saliou Mbacke gi nga xamni Serigne beccio moko koy santé ñogi bekk di ñaan sen barab yi yokku te yeen ñafa nek yeen ngeen yokku waaw ci saayir ak ci batin ñoo Nyongi ñaan cant gi ñu bokk gi yeen ndol tu cant yi ñoo ñaan ba mu yagg fi te wér ndax mom bu fi yagge te wér lepp gëna jak lepp kat neexna na di gëna neex te lu mu gëna neex gëna a baax ci ñun kon ñoo santat universel bokum waaw goor liggey bi rafetna na ga barki sëriñ Béthio boobaak léegi yaa ngi ci ndax man kat woowuma ken ñom ñu ngi ni jëluma sama téléphone wo ci ken yow mi la sëriñ Béthio jox walum communication bi yow la ci waxal ba nga ma waxe man la man sama yoon nekku ci sëñ Béthio yow lu mësa jital ci communication bi kon doxalal ya coordonner ba lepp dajé fi kon waaw gor waaw kon mbokk taalibe yi ma ngi sant ñep bayiwuma kenn di ñaanal suñu sang bi mu yàgg fi loolu te gën a wér euh, sëñ Sargal Tappé yu rafet na waaw sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Xaadim Cuun honorable kaddu yi rafet na jërëjëf waaw mbokk taalibe yi universel Ousmane Sène kaddu yu rafet na waaw jëwriñ universel Ibrahima Diagne way neex nañu waaw jëwriñ Omar Sow sant nañu Serigne Béthio mbokk talibé yi waw ah jeun universel mam Cheikh Sikar waw jàmbaaru Serigne Béthio gi waw Sikar si neex na yëngal nga ñun ñun waw jeure jeufati Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yalla na fi yag te gëna wër wér jaa ngeen jëf sëñ daam ñoo bëgg lool sa taxaway waw ni nga fi teewee fàttali ñu wax ji nakkat serigne sëñ daan nañu ko wax mu neex ñu lool waaye nii nga fi toogee waxee ko nii nga ñu ko waxee dafa am feneen fu ñu yóbbu fam ñu yóbbu mooy dañoo gën a xamaat ne suñu waa amul morom Serigne Saliou Mbacké lu yëngu lu ne moo ko yëngal moo matale ak a matale waaw waaye sa seere su rafet si nga wax te jëf ju rëy mu la defal wax nga dëgg de jombe na de Serigne Saliou lay Serigne xam waye mom day deug deug Serigne Touba deug deug Serigne Touba nak bu toge nga fekk si ko mu defal la tawee gu rëy googee moo defal nga xamni lolou pajum aajo la ak allah xëy gën jëm nga xamni waxuma la yaw waye say dom say set say set ñi da leen di topp dañoo tok fi sa jëf ju rafet nga def dok ngir set si Serigne Béthio ba fekke fi li da la ci bolé mm-hmm. moo nga xamni saw nak dina dik soobee sëriñ bi waaw saw nag dina dikk saw xàbboon dina dikk ndax nag sëriñ Saliou Mbacké jëfam ci mbindeef yi wallaay ñi mu defal bëri na ñëpp la defal waaye jàppet jàppet ji kum ko defal war ngaa toog wax ko waaw ndax mooy waxi sëñ Abdoulaat gi waaw sëñ Abdoulaat waxam jërëjëf ji mu wax sëñ Abdou Ahad nee na ku ñu defal ku ñu defal ba bët tegu ci war ngaa wax ba nopp yëpp dégg ko mu jëfal la mu jëf jëfam jore jii mu jëf ci yow nga am fit wu toll nii yii nga am ndax mënoon nga ne am na fu ma fu fu ma féete di am looy incarné waaye Serigne Saliou woy lépp wax ji nga ko waxaat rek ñun ñu dégg ko jariñu ci àdduna dégg ko jariñu ci defaat na ci yow leneen loo xam ne bokkul woon dolli na la waaw dolli na la barki sëriñ Béthio ñoo ngi bég lool ñoo ngi sant kaddu yi rafet na lool waaw ndax ñun suñu sang bi rek la am moom rek la am amuñu keneen ku moom ñun xam nañ ne mooy suñu raison de vivre ñun xam nañ ne bu ñu amee ci sëriñ Touba lu toll tarfatal ay ni gëm ko ni ñu ko gëmee te moo ko def ci ñun ndax sëriñ Touba day lu kenn xamul kenn xamu ko ba di ko bëgg bëgg mbaa nga di ko gëm moo lay bëggal boppam moo tax nga nga di ko gëm wala nga di ko bëgg. Mm-hmm. loolee nag suñu sang bi moom Serigne Béthio moo ñu ko defal ndax Serigne Saliou kat mënoon nañ ko bañ a xam ndax Serigne Touba mi wootee màggalam gi ci mbubbam mu njëkk ba ne képp koo xam ne sama mbeg sa mbéga nag ma sant la yàlla tàmbale ko ci ginaar ba ci gëléem boobu ñun fekkewuñ ko suñuy bàyyeeg suñuy ndey sax fekkewuñ ko mm-hmm. waaw kon buñ ko fekkee ci jamonoom jii mu woote. daan waaye sëñ bi ne sa taalibe nañu fonk màggalug sëriñ Tuubaa gi nañu fonk gàmmu gi nañu fonk xasaay di sëriñ Béthio day sëriñ Saliou mën nañ ko teg 17 avril am bii ndax mooy rajo bu du woon moom lii mooy ndeyu bés yi ndax bu du woon bés bii 17 avril ñun duñu dooni nit bay dooni jullit bay dooni murit bay dooni cantaakoon bay jot digalu sëriñ Touba moom sëriñ Saliou ci jëf leen màggal gi ndax fekkee wuñ ca kaalaam gu njëkk ga kon loolu buñ ko amee moom sëñ Béthio jaamu sëriñ Saliou moo ñu ko may ndax fa sëriñ Saliou kenn jotewu fa ku dul moom ndax ba àll bi ne tat kenn xamul ne mooma sëriñ Béthio ne mooma ba mu lëndëmee ba kenn xamul ne sëriñ Saliou mooy dëgg-dëgg sëriñ Touba sëriñ Béthio moo ko leeral moo ne sëriñ Saliou mooy sëriñ Touba kon loolu buñ ko amee dund ko bëgg ko gëm ko ba yemalewuñ ko dara loolu sëñ beccoo ñu ko may moo tax boo ñëwee jël sa tànk yu rafet yii nga dox ñëw ba ci biir këram gi dala cee boole kon sëriñ saaliw waaye waaye sëriñ saaliw defam waaye defam waaye sëriñ saaliw defam waaye defam moo tax sant nañ bu baax bokk taaliba yi guddi na te yitte bari na te bis bi yegsi na te faw nuñ ci nuñ rek dañu aj baar bi fi mu toll nii waxatuma sa aj baar waaye réeral baar bi waaw ndax baar bi sax boo ko ajee mën nga jéem a ñokkal yi di ko jéem jot waaye dañ koy réeral ba da ngay rek waaw waaw kon nañ ci daal di nekkaat waaw na saf sap sëñ Béthio ngi dikk daa war a neex daa war a neex bay kelkel yi daa war a waaw daa war a neex ba sumburumbaan kon yàlla na fi yàgg te gën a wér